dama nekkal sama bàyyi jiit le léegi ba ma nekkee moom yàlla def na nag depuis sama papa ba ma amee ba ma amee 11 ans la sama papa gaañu léegi ba ma amee ma nekkal sama yaay pendant 4 ans mu am mu am jëkkëram bii ba mu ko amee nag.

Douzaay waaw léegi nag maa ngi nekk sama kër papa yaa ngi dégg ba mu fa nekkee pa bi daal gis naa ne daal sama nekk nag moom daal taxul te demee noonu sa papa yi bi daal sama papa yi jiitle bi dafa sëy ci kër googu léegi nag far yàlla ñuy dem di dem sama yaay feebar boobu man maay taawu kër gi amuñ xaalis léegi ba ñu amulee xaalis teg sama papa bi ma jur man daf ñoo bàyyi woon terrain maag sama yaay ma ko yaay comme da lu ñu lu lay te man yàlla yàlla xam doy na awma liggéey awma dara sama jëkkër ba mu demee ba tey tamit li yàlla ko léegi xaar ma jaay jaay parcelle bi parcelle boobu foofu lañ nekkoon maag sama jëkkër balaa muy dem ma defoon fa benn néegi ñax ñu newoon fa léegi ma ne ko xaar comme moom dem na te man aw ma doom te sama papa ji am na fi kër gu boo xam ne moo ko moomal boppam mun naa feene man ni sama bagage ñi ne fi comme moom day togg sama yaay day togg liibar may togg ñu boole def benn daal waaw ma daal di ñëw ba ba kiyee ma jo ji jaay parcelle bi bañ jaayee parcelle bi ma ne ko léegi sama yaay mu ne comme ko xaaj ci digg bi nga jël sa waay ma ko déedéet faju si ba pare soo ci fajoo ba pare léegi li des man dinaa xam li may def mu ñuy def noonu ba yàlla def ñuy faj di faj ba mu tane na tanewul mu ne léegi nag ba mu xawee tane ba nga xam ne delluwaat na normal mu li ma léegi li des jël ko ma ne ko man li des man ma bëgg a dem fekk ji sama jëkkër fam ne maw am naa ko may lijjanti pour ma dem léegi mu ne ma waxtaan ci ak sa papa ma ne ko waa ma wax ci moom mu ne ma mënumaa dem ndax euh, sëy bi tasul affaire yooyu naa toog fii xaar ko ndax bitim réew dafa métti dem fa koo xam ne mi ngi dem amu fa lu mu fa nekkee nga bugg a dem beneen charge ma ne ko ah comme moom homme de la mu wax ma lool kon li mu wax dëgg la ma daal toog léegi daal bi ma toogee sax suba teel paa bu ñëwee fëgg sama néeg jàmbatuma ay problème su kii jàmbatuma ay problème ma ne waa kii xam naa xaalis bi la bëgg moo tax mu may wax nii léegi nag ba mu ba mu demee noonu ma ne ko lii wax ma li nga soxla mu ne ma béede waxal rek xam nga fu nekk nii kër gi man fu nekk nii mag laa jël naa retraite te kër gaa ngi liñ maa ngi koy defar pareegul léegi te yooyu yaay taawu kër gi wax daal wax joo xam ne mu daw sama yaram daal mu ne ma say rakkan say tey bu ma fi nekkulee yaay yaay yaay remplacé kër gi su ma fi dee ma ne ko déedéet yàllaa ko yor mun naa mun nga maa jiitu mun naa laa dafa am doom ak sa yaay yeneen doom moom am na sama yaay am naa moom ñeent ñeenti bant yaa ngi dégg mais ñaan yi dañoo dellu mu des kenn juróom la woon sax mais ñett dellu mu des ñaar loolu nag moo jàpp sama yaay parce que xale gaañoo dafa métti yaa ngi léegi nag mu mu def noonu mën a ko waa jël mën mën a ko léegi balaa ma lay jox xaalis bi des bàyyi ma jënd jakarta ah, muy daw suy ma am ma lu ma ma mun a dajale eh, kii yaa daal xoolaat bu dee am naa ci lu bëri ma xool lu may investi daal man tamit pour maa des noonu ma jënd jakarta jakarta jakarta bi di daw di daw mais xam nga jigéen ak matériel soo ko yoree rek dañ lay négligé gars yi di ma may gis mu koy fraudé di ko def fi kenn xamul ba affaire bi su dafa dem même pas six mois sax li may li ñu may versé li may defarlee moto bi moo gën a ëpp sax li may liñ may versé léegi nag ma ne léegi xaar ma jaay jakarta bi man fu ne sonn naa entre temps man kist feeñu ma may def traitement dama doon saigné kist feeñu ma léegi ma jël xaalis boo tamit ma fajoo ko xam nga jeex na léegi bi bi jeexee maa sama kër papa toog xee amatuma jàmm paa daa andil ma attroupement ah ko ci xaalis bi xaalis ma ko jox moom moom moom xawma fu mu ko dugal jox naa ko ci xaalis bi man dama jënd jakarta li ci des ma joxoo ko mais xawma fu mu dugal xaalis bi defaru kër gi ba pare mooy loolu tuuti daal la ci defal installé na fa ay courant ki kenn xamul daal mais li ci des ma ba tam laaju ko ko tamit foo dugal xaalis bi yaa ngi dégg may mayu ma su ñëwee dugg na fi génn mu jàpp sama dàq na ma ñaari yoon ca kër ga mu ne ngay génn pour lan dàq na ma ñaari yoon ma dëgër bopp léegi dem na ba wax sama yaay ne ko kii bu génn man damay génn te su ma génnee doolee xam fu ma ne sama yaay wax ma loolu ma xam ne fu nekk nii man kon ci tas sëy jàmbur laa nar a def te man sama sëy bugguma mu tas kon dama ñaan ma yàlla tas sëyam bi moom lu mu bëgg luy problème am xaw ma dem naa yónni naa fa ay ndaw wax ak moom pour ma wax laa ko def ma baalu ko su fekkee dafa am lu ko def te man xaw ma ko ma ma lan laa ko ma baalu mais mu ne man dama dëgër leen daal su ma naree toog ci kër gi daal damay tas sama sëy su fekkee tas ma sëy ma génn kër gi ma a ah, posé mais mu ne man dama dëgër bopp du xam nga lay xoole beneen bët bu dul bu sama xarit wax loolu am na sama benn son fi confinement ko wax dëgg yàlla xaw ma de xaw ma de mais daal loolu tax boobu la ma taxaw wax ko lan laa ko def ma baalu ko ah wala man ma ñëw fa ñu toog waxtaan fa mu ne moom suñu suma ma ñëwee du toog ak man naa léegi man sama yaay léegi xoolal sa mbokk yi kan laa mën a dem ma nekk fa yaa ngi dégg man ma toog xaas ma jëkkal comme bëgguma bëgguma sama sëy tas du ma ñaan ma yàlla yow sa sëy tas léegi génn nga kër ga man génn naa kër ga maa ngi mais nangu na sa jëkkër bu ñëwee ngeen toog ca kër ga nangu na loolu wax waxu ci sax lu ci jëm waxu ci sax lu ci jëm man génn naa kër gi maa ngi fii sama kër tante toog di fortaatu léegi lu ma am maa yónnee sama yaay instant yi dama doon liggéey ay kii laa doon liggéey léegi ñi gars yi dem nañ fu nekk di maa ngi nii di chemin liggéeyatuma te fi mu loo bëgg yow sa jëkkër ñëw man li ma bëgg jàppale ma sama jëkkër ñibbisi parce naa sama jëkkër bëgg koo xam ne bëgguma bëgguma tas am lu ma bëgg suba ba ngoon jot daf moom am na lii am na kay am loolu mooy problème amul ba ni may wax ak yow jafe-jafe gi la gi la am amoon na fi temps yi ne woon naa ko jàppale xam benn affaire fee duñ kaa sax ambassade bu Espagne demoon ba lijjanti ko mais dañ tey day day am na lii am na laa dugg na fii problème si problème daal daf nekk ni xaas da bañ ko laaj pour mu mun a am kayit amu ko ndax am na benn liggéey buñ ko ci loon kon ñu ne woon ne bu amee deux ans dañ lay kiyal contrat pour mun laa jàppale nga am këyit far liggéey ba wàññi am mu bokk ca yaa ngi dégg te instant yi fu mu nekk ni dañ ma séddoon benn xale boobu dafa xat ah, ci xale boobu léegi fexe na ba xale boobu sama yaay dellu na ma ko mi ngi samay loxo yaa dégg léegi instant yi mu ne mu ne léegi na sama bagage yi génn su génn du léegi moom mu ngi fii toog sama yaay ngi fee te sama yaay dëkk ci wetam ma dend dend ak moom di ko surveiller man moom ma gënaloon ma toog xaar ba sama jëkkër ñëw bu amee ku ma mën a jàppale daal dimbale ma sama jëkkër fa mu ne këyitam yi mun a yomb mu mun a ñëw ma ma nekk ak moom xëy na yàlla suñu defee di mën nañoo may doom ma daal bëgg naa ko trop bëgg naa ko bëgg yem te ñaanuma yàlla di defar sama sëy di tas sama sëy yaay bi bëgguma ko